kilifa yi fi teew yépp ma ci ràññee monsieur le maire El Hadj Abdou Lahad ak conseil municipal am yépp ak ki fi teewal Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fii te wér continuer di ñaanal Sénégal Afrique ak àddina bi tey jii nii ci bés bi bés bu mag la ci gestion des déchets 2019 président dafa terloon ñaari programme yu mag mu denk ko ministère de l'urbanisme benn bi mu ngi tuddee programme zéro bidonville beneen bi mu tuddee ko programme zéro déchet ci programme zéro déchet xam ngeen ni président mu ngi ko dénkoon UCG bi nga xam ne ci cabinet ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène la nekkoon UCG yemoon ci ndakaaru kese président ne na egg fépp Touba gi UCG amu fi woon président Macky Sall moo décidé na àgg fépp surtout nag dëkk yu mel ni yu mel ni Touba doyu ko mu transformé UCG def ko société nationale 2022 tegaat ci njiit la ki nekkoon ci UCG muy Mass Thiam ma profité ci félicité waat Mass Thiam bu baax loolu duma ko tàyyi félicité ñi muy bokk liggéey bi mais surtout félicité ñi nga xam ni mooy jeunes yu nga xam ne ñoo nangu service seen réew nekk ci mbedd mi guddi bëccëg ci naaj bu tàng xam ni xam ni liggéey rek comme ni ko sëñ Touba digale woon liggéey rek ñaari mbir liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla bu fayul gisuma lu muy fay tubaa gi exemple la ci loolu mu félicité ñëpp ñu nekk ci Sonaged ak liggéey bi rafet bi ñu def ci réew mi yëpp te fii ci tubaa ñu mandargal ko ko waaye fii dafay franchir beneen étape étape boobu dafa am ñu ñu ci jàppale mooy wax nañ leen fii sànq euh, mooy le duché de Luxembourg mais surtout jiji ay ñoom i tamit ñu jàpp ci ba lii ñu yamb nii tey mu dem ci beneen étape mooy dañ doon jël rek ay xale ñu yore ay bale di di bale ci mbedd yi léegi daf leen defar benn infrastructure boo xam ne mbalit mi dañu koy non seulement plastique yi ñuy gis ci mbedd yi dana wàññeeku bu baax a baax mais dañ koy transformer mbir mi mu mën a njëriñ non seulement mu utiliser ko ci yeneen produit ñu transformer ko yeneen produit mais mu mën a njëriñ li nga xam ne day indi day yokk xëy mi ci emploi vert yu tubaab yi di wax emploi vert mu yokk ko te Touba di ko njëriñoo te li ñuy def fii du dem ci gafaka rek état bi ou ci gafa Sonaged mais day dellu ci commune de de Touba bi nga xam ni moom moo ñu jàppale jox ñu suuf si moo tax monsieur le maire maa ngi lay gërëm itam ci sa participation ci liggéey boobu ba lii mën a yàmb tey parce que li des nag mooy mbir mi dafay daanaka président dafa ubbi benn paradigme bu bees ci doxalin ci traitement wu ordure loolu nag loolu nag dañ cee war a dañ cee war a jàpp bu baax a baax dañ ci war a jàpp bu baax a baax parce que lii mooy président dafa créé woon Promojet Promojet mu def ko ci Sonaget rôle Promojet moo nekk di créer infrastructure jox ko Sonaged Sonaged lënkaloo mairie yu nekk ci biir Sénégal ak acteurs yu développement yu nekk ci seen biir Sénégal pour loolu mën a njëriñ askan bi phase boobu la ñu ubbi nii tey phase boobu tamit dafa laaj lu bëri lu bëri lu mu laaj mooy d'abord engagement bi ñu am ba nga xam ne ñi nga ñu wóolu dënk ñu seen alal ñu gis ci seen bopp ñu ñu sénégalais yu yaakaar ni programme zéro déchet bi dana indi ab njëriñ non seulement Sénégal dana set mais xale yi danañ ci ut xëy mu mën a aussi mbalit mi ñu transformer ko ci ay ñu revaloriser ko loolu yëpp anam yooyu yëpp ñu mën koo gis ci anam yu rafet moo tax ma kontaan lool ci SONAGED ni mu ci liggéeyee ma kontaan ci ñu ñu jàppale mooy ah, ah, euh, le duché de Luxembourg ma leen di gërëmaat mooy aussi GGI ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ba lii mën a yemb mais surtout nag cadre yu nekk SONAGED ba liggéey bi mën a yemb di remercier nag parce que loolu yëpp. bu ñu ko defee te mairie bi amuloon volonté amuloon accompagnement bi ci war fii lii du sotti moo tax may gërëm monsieur le maire monsieur le maire El Hadj Abdou Lahad Ka ba ak conseil municipal am yëpp surtout nag porte parole bi nga xam ne kàddu gi moom leer na nañ wolof bu leer nañ di ko ci gërëm di ko sant ci ni ñu engagé ba defar jox ñu suuf si accompagne ba lii tey mën a taxaw mais aussi ma gërëm borom dëkk. bo borom dëkk bi tax tey lii am fii te mu toog fii ci tribune bi moo koy gërëm di ko sant di gërëm kilifa yi fi teew yëpp naaj bi tàng na lool mbir mi métti na lool waaye ay kilifa yu mag ñëpp bàyyi seen te ñëw toog fii ay soxna yu ay kilifa toog fii kon loolu itam bu ñu ko amee war cee sant yàlla waaye xaaruñu woon moins que lii parce que ñëw Touba rek ñëw tubaa rek barke nga ca boo ci yokkee nag boo ci yokkee nag sa liggéey yokku ci dañuy ñaan rek barke bi Touba am am ko ci umma islamique am ko ci Afrique am ko ci Sénégal mu law ci ñëpp ba nga xam ne jàmm ji la nekk ci tubaa law ci réew mi yëpp law ci umma islamique bi yëpp jàpp naa ne fii lañ démarré ci tubaa suñu programme bi dana barke ndaxte lépp lu déparé Touba day barke loolu la yàlla maye sëñ tubaa te loolu moo fi continuer law di continuer encore une fois di leen gërëm leen santu wasalaam